علم الخيب يا الله أنت الحليم الذي سحسحت جملة من لم تردهم لي لخير الدار يا الله أنت العزيم الذي بان العزامة لي خدت فضلا عسيما منك يا الله أنت الغفور الذي لي خدت مغفرة مع عيوبي رديت عنك يا الله أنت سكور الذي كلي لديك ردا ولي سكت جميع الصحي يا الله أنت العلي الذي أعليتني أبدا بغير مكر ولي حللت يا الله أنت الكبير الذي بانت كبارته لي خدت منك كبير الأجر يا الله أنت العفيس الذي واجهت في أبد إلا سواي العدا وضري الله أنت المقيت الذي خلدت لي رقدا بلا عساب إلى الجنات الله أنت العسيب الذي قد اكتفيت به عني الحدا والأسى والكد الله أنت الجليل الذي ساقت جلالته إلى سوانا العدا الدارين يا الله أنت الكريم الذي قد كنت لي كرما دنيا وأخرى مع التبصير يا الله أنت رقيب الذي بانت سيانته كليتي عن سوى رضواني الله أنت المجيب الذي خادت بغير عناء إجابة منك لي اخترت يا الله وإنك الواسع الباخي ولي أبدا وزحت توسعة بلدق يا الله أنت الحكيم الذي أدلقتني لسوى ما ساءني ومحوت السوء يا الله أنت الوديد الذي قادت مودتها لي سرمدا البردا والقرب الله أنت المجيد الذي بانت مجادته وقت لي منك مجدا فاغي الله ويلك البائس المبقي بلا درر كفيتني جملة الأقدار يا الله أنت سعيد الذي خادت سعادتها لي باسترائك مني شاق يا الله يا قل زاد بحق وهو جملة ما لم ترد لي مطلقا بالفضل يا الله أنت الوكيل الذي قد اكتفيت به في الدفع والجلب عاس الخلق يا الله أنت القوي الذي خويتني بردا في السر والجهر عاس الأمر يا الله أنت المتين الذي قد كنت لي بمنى ولا توجه للمكروه يا الله أنت الولي الذي لا تقي بدلا بي ولي كنت بالتامين يا الله أنت الحكيم أنت الحميد الذي واجهت لي نعما بلا غرور وخير المكر يا الله يا موسي الخلق والأسياء جملتها كفيتني در ما أحصيت يا الله يا مبدئ الخلق يا من لا توجه لي ما لا أحب رديت عنك يا الله معيد أحمد عود قد لي كرما في كل سعر ويوم فيك يا الله مهي بخير آيات جدت لي أبدا فلك شكري بصفو الحمر الله مميت قد سغت موتي للغدا ولهم مكاري سغت في الدارين الله يا حي عم عرداي معا مني يقص دون سخط منك يا الله غير مغاد خد لي ما كنت أطلبه bi xayri kasbin ilal jannaati yallaahu awsaltali waajidul asmaana dunaana lakkal wujuudu lasi lii baana yallaahu yaa maajidu ij'alni yaddaarayni mu'taliyan bi xayri kibrin wa ujbin rabbi yallaahu yaa waaxidu ij'alni yaddaarayni munfaridan ma'al munaa bi asiisin minka yallaahu لك التجائي بما لاختير يا صمدي بشرا لجملة من أحببت يا الله أرديت يا خادر المغسول منتفعا إلى سوانا لك التحميد يا الله رسقتني حجتيا أنت مقتدر مع الجوار وزور فيك يا الله أنت المقدم خدمني هنا وغدا على كثير من الأخيار يا الله أنت الموقر أذهبت الحدا ومدوا إلى سوانا مع الخسيان يا الله وإنك الأول جعلني هنا وغدا في السابقين بفضل منك يا الله يا آخر اجعلني الدارين سارة بن وسفع لي إلى الجنات يا الله يا سائر سخني المامول مرتديا عني وأسرق لي القرآن يا الله يا باتن ارزقني الأسرار شامنا واجعل فؤادي صرف الشكر يا الله هب لي بفضلك يا والي مواصلتي خير البرايا ومن وليت يا الله وإنك المتعالي سعوداك معا إلى سوى قصد در الدهر يا الله وسع وملك وأعتق دون مفسدة ولستجب دعوتي يا بر يا الله علي تبت مع الذنب جملتها تات كل يا تواب يا الله علي تبت مع الذنب جملتها تات كل يا تواب يا الله علي تبت مع الذنب جملتها تات كل يا تواب يا الله أنت الذي من غدا الإسلام منتقم ولن تقمت بما اخترت يا الله أنت العفو الذي عني عفوت بلا إبقاء عيب عديت الكل يا الله أنت رؤوف الذي عاينت رفته ولا توجهني أعداء يا الله يا مالك الملك لي وسحت دون جوان في الملك والملكوت الدهر يا الله yaa sal jalaali wa sal ikraami abli yamaa lixtarta dunya wa xol. asalaamaaleykum mbokk internautes yu Wassare TV ñoo ngi di nuyu encore une fois di leen ziar tey nag seen encore une fois gannaaw buy wër këru diine yu bëree bëri fii si Touba te ñu fii si tëndatu pour sekk si kan doomu Cheikh Béthio sëñ Saliou Thioune sëñ Saliou Thioune yaa na fi yàgg loolu déwén moom la ñëw te waxtaan ak tey jii waaye te wane lépp loo xam ne xew na fii di leen encore une jërëjëf si Ahmadou Bamba jërëjëf jërëjëf Ahmadou Bamba Xaadim Rasul sëñ bi eh ko may ñu waaw dellu ziar bu baax waaw maa góor gi moom di wax santaat bu baax a baax a baax yaa ngi koy maa ngi koy dund bu baax a baax a baax di dund tawfiix bu baax baax a baax a baax a baax tey tey sa teewaay fii waaw fii moo wax sama mbokk talib na tey moom il ma dem ci daar bi ma ziare ziare rek lañ fi indi ndax yaa gën dama bàyyi ko sama bërëb bàyyi ma ne il faut que ma ziare sëñ Saliou Thioune fi noonu tey di ko ñaanal suñu borom yàgg fi loolu te mu ànd góor lépp yéen bu mu am ci yoonu borom Tuubaa rek yàlla ko ci gën a def ci dem gën a taw féexe ci njaboot gi ci mbokk talib yi si doole si yëpp waaw di ko ñaanal bu baax a baax rek di ñaanal ndong yi tamit suñu borom yàgg leen fi lool te mu ànd góor yéen bu ñu am si sëriñ si doole si yëpp lan la wax yow sa diggante ak Cheikh Béthio lan la. sama diggante Cheikh Béthio Cheikh Béthio moom dama ko gis rek bëggal ko sama bopp ngir jëmm sëñ Saliou ndax man suñu borom dafa dogal moom sëñ Saliou dama ko mu ah, bëgg sëñ ma gën ko bëgg lool waaw ah, gis doon bi tamit mu doyloo ma neex ma waaw ma koy ñaanal tamit moom tamit bu ba sëñ Saliou Thioune di ko ñaanal suñu borom daal lool di bu baax waaw ah, di ko di ko ñaanal moom tamit yokk ko kattanam bu baax a baax a baax a wéram ci barki doole si yëngu waaw. waaw sa la lii daal la. li ma wax la. waaw pour rassurer. jaajëf sëñ bi boo koy siyaare il ko loxo jaare ko d'accord na sëñ bi bu ko siyaare bu sol mbaxana bu teggul moo tax ñu jël mbaxana futt ko ko fii waaw. di soxla mbokk taal baax waaw jaa ngeen jëf waaw. delloo ziar sëñ Mor la sëñ Mor man euh, ñëw rek comme sëñ bi moo woote moom sëñ moom bu wootee da ngay si moom bu woote jee woon France dañ koy wuyu si France. tey tey jii màggal gi. rek comme ni ko sëñ bi diglee maanaam def na lépp lu si war daal farata bi jàng nañ xasida teewlu nañ seelal waaw comme yooyu daal. sa diggante ak seen caayu tur la ba mu war a tax tey nga ñëw fii. ah man mën naa li ma si li ma si mën a wax bëri na euh, bëriwul parce que am na yoo xam ne looy dund la quoi looy yéeg la am na lu ñu jaral daal te lu ñu jaral bëri na trop moo tax mu waral suñu teewaay fii nii jéego yi jaajëf waay. tur la baal. maam Thierno. waaw màggal gi neex na neex na moom. Euh, fii jannatu laa dal. Euh, Dakar. parcel jannatu dafa neex. waaw dafa neex dafa xumb tamit. Koronte hmm? chaque année. soobe. ma ñëw jannatu waaw. ah mën nañ ne jannatu moo dàq de waaw. waaw jannatu rek ba abadan <laughs> loo tudd soxna si. maa ngi tudd Ndeye Binta Ndiaye. sag ah, gi neex na sëñ baa ko jaral sëñ Tuubaa kenn mënu kaa fay ndax liggéey yàlla moo ko fay lu maa ngi jógee ba Dakar ñëw sëñ Tuubaa Sëñ Tuuba tey li ñu liggéey yàlla fay ñun taalibe yi nag mënuñu kaa fay màggal gi neex na lekk yi bari man sama sëriñ exactement sëriñ Saal mooy sama sëriñ mu kaa bëgg. moo tax ma ñëw fii tey si janal. moo tax ma ñëw fii tey si cant gi ndax sëñ Béthio man sëñ neex merci. ñëw ziar. ñëw ziar wër. sant naa sëriñ Saal. waaw màggal gi neex lool. ndax màggal gi. gannaaw loolu ñu ngi ñu ngi siyaare Cheikh mu yàgg fi loolu te wër ñaan sëñ Cheikh moom sëñ Saliou yàlla na fi yàgg loolu te wër ak sëñ Saliou ndigal cuun yàlla na fi yàlla na fi wër ndax moom moo suñu kiiraay te moo ñu dimbali ci yu bari ñaan sëriñ mottale ay yéenam ci képp ku fi nekkal sëñ Tuubaa barke sëñ Saliou lu waa tey nga teew fii si Danatou waaw dañuy teew ngir bu ñun ñun suñu tàggatoo cant gi mooy cantu tàggatoo cant guddi màggal gi ndax deuxième guddi bi deuxième guddi bi ci la ñëpp mën a dajaloo su ko defee bu ñu bu ñu ñaan ba yeewee ko ñu bëri mën a yeewee ko waaye loolu nag ak sant gi la ndax suñu béjo moo ko commencé suñu béjo bi mu koy commencé ñu bëri xamuñu la mu doon def. waaye suñu borom dafa wax ne la in shakartum la asi azidannakum ku sant ñu dolli la loolu nag nit dina jëm nag nam ngay commencé nam ngay commencé ñu bari bu ñu xam commencement bi xam ci silaay bi lu ko waral waaye bu ñu ci biir ci lañ doog a comprendre comprendre demee noonu boo xoolee cant gi lu bari defaroon nañ ñu bari nar nañ yàqu seeni waajur ak seeni seeni am di jàmm seeni mbokk xam nañ ni ñii kat ci ñoom lañ bokk waaye defaru nañ ci ndax koo xam ne ba ñu ñëw ci jan gi xamul dara te lépp dafa tabaat ci can ci màggal gi ndax màggal gi mooy mooy cant mag bi màggal gi sëriñ sa Serigne Touba mi wax ne Serigne Sall dañu ko nettali fu ñaar dendee kii da ko fonk kii da ko bañ a fonk ka koy di fonk du ñàkk tiime ka ko du fonk fonk wax na ne màggal gi jaxalta sayru yi fawqa xajjin wa jihaad fil ajri wa yumni wa fi kulli rasaad def naa sama màggal moo moo fawqa ak mu tiim eh, ak ak xumra ak bépp yi def naa sama màggal bés la boo xam ne lu ko waay sëf attan na ko dina loolu nag moom ñun ñëpp dañuy ci biir ndax suñ jox bu muy ñaan waxul joolaa bi waxul séeréer waxul bël waxul kenn waxul benn xeet dafa wax ni képp koo xam ne sama mbëkk sa méja kaay sant la ma yàlla sant boobu nag bu ñu wax la suñ jox mu mës mooy sant la gi ñu koy sant demoon na ma xam ne rootoon na ci loolu nag. ci la woo di mu am woo ndax woo tuddee woowu murit woowu xaajar woowu tijaan woowu laayan dafa woo kundi jaam képp koo xam ne yaa ngi nooyi mooy zimaamul wara asri la dal laay yaa malikal mulki yaa man jalla an qawadin irham jamia al wara yaa haadiyan radaa loolu nag ci la ñëpp tàbbi tubaab beeg chinois bépp xeet loolu dañoo tabb ci biir te ay alli Serigne Touba lañu ñun suñu xol bi Serigne Touba rek a ci nekk yàlla nañ ci gën a nekk gën a woy ndax bu ñu toppee Serigne Touba mooy topp yàlla topp bu ñu topp Serigne Touba moom moo ñu yàlla te màggal ci loolu lépp nag ndax Serigne Sall maa ngi wax yow Serigne Sall nee na bu ñu demee àjjana ay bis gi am fa de li fa am mooy bés màggal gi te lu ci waay bu ëllëgee fa nga nekk sa ndab dana la fekk loolu nag moom mooy lépp kon ñu kon ñu sëñ Tuubaa yàlla nañ ko suñu borom fayal noonu loolu moom mooy ndox géej gi mooy ndax géej gi am na ndox rek loolu moom xanaa répression la rek dafa nañ ñoo xam ne ñu dañuy nar dund ba dee ba suñu suñu xaj sëkk ñu yi jëriñu barki mooy lépp fa la ñu génne fa la ñu génne. donc ki ñuy envoyé ki ñuy envoyé. waaw ñoo ànd na. waaw ñoo ànd ñoo ànd. waaw. waaw jël naa. xoolal ñu ngi xaw a suuf. ko ɓe nango Mohamed Mohamed Diofaye mawr moom vraiment neex na nee na vraiment aussi ñu ñaan yàlla euh, ñu fekk koy at at macha allah lépp luñ ci ñaan aussi ñun yàlla nangul ñu ko yàlla daf ñu koy téwee ay at at en tout cas. nga choisir tey Demet. dégg nga euh, parce que chien bi dañ ko bëgg dañ bëgg Cheikh Béthio vraiment suñu sañoon sax année fii la ñuy màggalee quoi. Papa tur naka la. Garmi Gueye. Ah, merci beaucoup. merci. nga ñëw dana fi. ah je pense que ay taalibe Cheikh te en plus dañu ko bëgg. bien vrai que jógewu fi benn yoon. même nekku fi mais mu ngi ci xol yi. foo jógee nii. <laughs> waaw manqué nañu nag trop mais pas tellement ndax je pense que nekk fi mais si Saliou moo ngi fi voilà mais absence am feeñ na fi quoi par rapport ak bu fi nekk ni mu daan mel yooyu noonu. voilà effectivement ci doon gën a xumb mais en tout cas daal xaw na fi manqué manqué wu fi voilà. ah tuuti Modou la. Modou la waaw. ah, ah su ma toog kon yow. ndeysaan. tey naka maa ngi. ah moom vraiment maa ngi neex na moom. waaw ah, neex na trop. ñu paas si jaamu di ñaan yàlla ñu fekk ko ay déwén déwén waaw magal gi neex na ma macha allah di ñaan yàlla ñu fekk ay déwén yu bëree bëri bëri macha allah. dina def seen béykat la ah Cheikh moom euh, du ko bëgg waaw dama bëgg taalib Cheikh waaw dama bëgg Cheikh bi da bëgg ay waa këram macha allah moo tax chaque année ah, ma fekkee Sénégal dama ñëw fii dafa dafa màggale fii nii. soo fekkee Sénégal ma ne foo doon màggalee. fii laa ma fekkee Sénégal ma tombé Sénégal fii laa koy màggalee. waaw incha ah, bëgg naa ko incha bëgg naa ko. parce que màgg gi moom vraiment neex neex na waaw. maa ngi si màggal. Euh, màgg gi moom dafa neex moom. na lépp doy na macha allah tur Ibrahima. waaye. yow si gàttal a bokk tur bi baax. ah Mbadou sama sama kaw. Ah, man duma band. dama la neex na macha allah. nee na trop. sant nañu yàlla bu baax fekkee nañ ko ren daal yàlla nañu yàlla fekkee kay déwén déwén. ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy loolu bi moo jógee Hollande ñëw fii moo tax ma ñëw màggal mais man daaw man ñëw màggal sax man xaw ma sax man xaw ma dañ ma doon indi mais ren moom macha allah ñu ma bien c'est bien passé waay neex na trop macha i cant yi neex na macha allah na neex na mooy loolu ok jaajëf ok merci. sant rek Mohamed Cissé waaw. tonton hmm? moo fi gën. sama tonton sant Cheikh Béthio rek ndax li ko waral lépp mooy bëgg gi mu bëgg Serigne Saliou te bëgg gi mu bëgg Serigne Saliou Serigne Saliou bëgg gi mu bëggoon ndaw ñi moo waral ngi ndaw ñi ñu bëgg Cheikh Béthio ndax moo lii lépp sant Serigne Saliou rek moo tax mu di ko def màggal gi li mu ci rey si kii yëpp sante bi Serigne Saliou ak Serigne Touba mi nga xam ne moo tagg yónnent bi si bépp fànn sellal bépp jaamu yàlla mu sellal ko ci bépp fànn. di ko su bëgg Cheikh Béthio daal ak xol bu fees moo ñu indi fii ak sant Serigne Saliou mi nga xam ne moom moo doon yërmande ndaw ñi xam ne moom yërmandeem dafa demoon ba romb mbindeef yi dem ba ci mala yi sax Serigne Saliou Mbacké dafa mujjoon am ci ñoom yërmande kon yërmande googu mu amoon ci ñun ndaw ñi nag moom la jël dolloo ko seex Béthio mi nga xam ne moom ko fi nekkaloon bi Cheikh Béthio kii nag ñu jox ko Serigne Saliou kon sant Serigne Saliou rek moom moo ñu war. moo ñu andi fii ci bis bi mu ngi dëkk fii ba Umul Qura ci ginnaaw fii ci kaw wetu daar Tamsir waaye sant bëgg Sëriñ Saliou rek moo ñu andi fii ngir sant ko ngir dooleel ko ndax képp koo xam ne mu ngi jug ngir di màggali dafa bëgg loo xam ne def bu ëllëg yomal qiyaamee ñu fay ko ko ba mu kontaan te màggal gi lépp loo xam ne jëf nga ko ci lu baax rek suñu borom dana la ko fulal ci bépp fànn rek waa ñu gën góor góorgóorlu bu wér te xam indi si àdduna mooy jaamu yàlla te jaamu yàlla dañ koy sellal ndax bool bu taqee boo ci defee ñam doo ko mën a lekk kon da nga ko tuur kon nañ raxas bépp ndab waaye màggal gi bépp gàkk-gàkk bu nekkoon ci julli rek suñu borom daf koy raxas ba mu set te ñu moytu di def naka su dul noonu nañ jël lépp rek jub jubbal ko sëriñ bi te ne mooy li ñu war asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh moo ca jëfee. jëfe jëfe goo xam ne. moo ca jëfee jëfe goo xam ne. tey résultat yaa ngi nii. tey lii résultat yaa ngi mooy. mooy cantaakoon yi. mooy cantaakoon yi. ñu ngi boot seen loxo. ñu ngi boot seen i loxo. di jàng xasaay ci Serigne Touba yi. di jàng xasaay ci Serigne Touba yi. di ko defee noo xam ni. di ko defee noo xam ni. ku ko dégg. ku ko dégg. ni waa kër Serigne Béthio. ni cey waa kër Serigne Béthio kooku amatuñu payam nee na sëriñ bi day moom amatuñu payam waaye yemul ci loolu rek nee na waaye nag moom yemul ci loolu rek de ci sunu xol yi tàbbal na ci sunu xol yi sëriñ bi sëriñ bi dundal na sunu ruug dundal na ci sunu borom ci sunu borom teg teg teg nañu ci yoonu wóor teg nañu ci yoonu wóor booba ak léegi nag booba ak léegi mel na ni mel na nag ñu ngi ci ñu ngi ci lam ñu daan digal bi daan digal mooy topp sëriñ mooy topp sëriñ bëgg ko sopp sopp di ko liggéey te di ko liggéey te loola nag te loola nag na loolu nag mel na ni ñu ngi ciy def suñu kéemtaan. mbooloo nag. nee na mbooloo nag. ñëpp bu dul ñëpp ñu ci ëpp. ñu ci ëpp. njàngaleem njàngaleem sëriñ bi téye na. ñoom day téye nañ te loolu rek mooy suñu njariñ. nee te loolu yi rek mooy suñu njariñ. sellal. sellal. suñu diggante ak moom. sellal suñu diggante ak sëriñ xam ni moom. xam ni moom. mu ngi fi. mu ngi fi. moo fi nekkoon démb. moo fi nekkoon démb. moo fi nekk tey. moo fi nekk tey. te bu ëllëgee. moo fi nekk it mbiram. mbiram. saa su ne. saa su ne. day wéy. day wéy. kat waxi Serigne Saliou woon. nee na loolu kat waxi Serigne Saliou woon. moo ko ni woon. moo ko ni woon. mbiri Serigne Touba di dox. fekk mbirum Serigne Touba di dox. say mbir di dox. tey nag firnde la ci. ndax li xew ci penc mii. ndax li xew ci penc mii. diggante démb ak tey. wane na ci lu bare. nee na loolu léegi wane na ci lu bare bari. bu wanewul lépp it. bu wane na ci lu bari. wane na ci lu bare bari. bâche bii ñu toog. bâche bii waxtu bi daaw. mille mètres carré la woon. mille ren. ren def nañ ko mille cinq cent def nañ ko ren mille cinq cent mètres carrés. te mel na ni. te mel na ni. mbooloo mi xajuñ ci. te mbooloo mi xajuñ ci. li ne ci biti. li ne ci biti. moo ëpp li ci biir. moo ëpp li ci biir. kon day mel ni. kon nag day mel ni. buñ leen nee. buñ nee leen. sëriñ bi jógu fi. sëriñ bi jógu fi. war ngeen a xam ni loolu moom dëgg la. nee na loola nag moom war ngeen a xam ni loola nag moom dëgg la. Serigne Touba. Serigne Touba. mooy def lu ko soob. mooy def lu ko soob. ci ku ko neex. ci ku ko neex. moo ko def ci moom. moo ko def ci moom. defin woo xam ni. defin woo xam ni. boo ko doon seet. boo ko doon seet. lu tumuranke lay doon. lu tumuranke lay doon. cëj. Mhm. ak loolu nag. loolu nag. gisal nañ ko seen bopp. ñëpp gisal nañ ko seen bopp. liggéey bi nag. nee liggéey bi nag. mu ngi ci tuut tànk yii. mu ngi ci tuut tànk yii. sànq dama ko wax universel Ousmane Fall Sarr. nee na sànq da koo wax universel Ousmane Fall Sarr. fekk ñu siyaare si ma ñoo seen waa daara. na fekk ñu siyaare si ko ñoom ak seen waa ànd ak seen i doom. ànd ak seen i doom. tuut tànk yi. tuut tànk yi. nga xam ne ñi ci ëpp. nga xam ne ñi ci ëpp. Serigne Saliou lañ tudd. Serigne Saliou lañ tudd Cheikh Cheikh Béthio maam Cheikh maam Cheikh Ibra sëñ Abdoulaat Cheikh Abdoulaat jigéen ñi jigéen ñi maam Jaara Buso maam Jaara Buso soxna Faati soxna Faati wala maam Bam wala maam Bam ba ñu sàkk kuréel ci seen biir ba ñu sàkk kuréel ci seen biir ba def ci jëwriñ ba def ci jëwriñ ma ne ko nag lii mooy liggéey nee na mu ne ko nag lii mooy liggéey bi loola dama ci ñaax ñëpp nee na loolu gone yi nañ leen yar nañ leen yar te nàmpatal leen ci sëriñ te nàmpatal leen ci sëriñ ku ci yor doom ku ci yor doom na ko yóbbu ci daara na ko yóbbu ci daara ji daara ji falees mën a defaroo falees mën a defaroo daaray sëriñ tubaa yii daaray sëriñ tubaa yii daaray xelkom daaray xelkom yu sëriñ cheikh yu sëriñ cheikh sama sang ba sangam ba foofa dey foofa dey ku fa tàbbal sa doom ku fa tàbbal sa doom mucc na ci saytaan mucc na ci saytaane te loolu rek nee na te loolu rek mooy sama mébét loolu mooy mébétam moom loolee mu nekkee woon loolu mu nekkee woon foofee bu tegoon foofee mu tegoon tànk ci dimbali ñu ci dimbali ñu ba tey ba tey ñu mën a doxal lii ñuy doxal ba tey ñu mën a doxal lii ñuy doxal bu ñu waajalul woon bu ñu waajalul woon génne gaañi ci école yi génne gaañi ci école yi ñii mu jël leen yóbbu daara ñii mu jël leen yóbbu daara ñii jàng mu ñaax leen ci seenum njàng ñii jàng mu ñaax leen ci seenum njàng te yar leen ci Serigne Touba te yar leen ci Serigne Touba kon lii du mën a dox tey nee na kon lii du mën a dox tey liggéey ba mat na liggéey ba mat na sëkk sëkk ñu ngi koy sant. ñu ngi koy sant. kem sunu kattan. kem sunu kattan. te jéem a gore sunu diggante moom. te jéem a gore sunu diggante ak moom. sàmmonte. sàmmonte. ak la nga xam ni moom la digle woon. ak la nga xam ni moom rek la digle woon. sàmm sunu ngor. sàmm nag sunu ngor. sunu diggante ak moom. sunu diggante ak sëriñ loolu nag nan koy defee. loolu nag nan koy defee. mooy ne ci li mu bëgg rek. mooy ne rek ci li mu bëgg. ci lam ñu digaloon. ca lam ñu digaloon. weesuwul lii. weesuwul lii maa ngi leen di sant bu baax. nee na nag moo ngi leen di sant bu baax. fii ku fi tàbbi. fii ku fi tàbbi. xam ne yarub sëñ Béthio nii lay. xam ne yarub sëñ Béthio nii lay mel. gisoo fi ku yuuxu. gisoo fi ku wax. gisoo fi ku wax. ñëpp a ngi toog. ñëpp a ngi toog. yiw yiw. jàng xasaay ci jàng xasaay di ko sant. di ko sant. waaye damay wax ni. waaye day wax ni. man de. moom sëriñ bi ñëpp war nañoo sant ñëpp war nañoo sant waaye nag maa ci raw nee na waaye moom mii toog moo ci raw ndax mbooloo mu mel nii ndax mbooloo mu mel nii ku la boole ak ñoom ku la boole ak ñoom mboole mbooloo mu rafetee nii mbooloo mu rafetee nii bëgg sëriñ tubaa nii mbooloo mu bëggee sëriñ tubaa nii nangoo jëfe ndigal yi nangoo jëfe ndigal sëriñ tubaa mel nii ñu mel mel nii ñu mel kuñ ko booleel kuñ ko booleel war ngaa sant war ngaa sant moo tax mu yëg sant bu rëy. nee na moo tax mu yëg ak cant bu rëy. ci ànd bi ma ànd ak yéen. ànd gi nga xam ne moom la ànd ak yéen. maa ngi leen di jaajëfal. mu ngi leen di jaajëfal. màggal gi. màggal gi. ba mu desee daanaka ñaari weer. ba mu desee daanaka ñaari weer. ñetti weer ñetti weer. ci gën gëjël noppalu. nee ci gën gëjël noppalu. lu ne daj ngeen. nee lu ne daj ngeen. liggéey bi yombul. liggéey bi yombul. waaye yomb na. waaye nag yomb na. ndax ci yoon sëriñ bi teg nañu ci yoon am nañu xolub liggéeyal te am nañu xolub liggéeyal ko kon day yomb kon nag day yomb li koy wane rek nee na li koy wane rek màggal gi màggal gi liñ ci jëf liñ ci jëf lu ñu jëfoon daaw rek lu ñu jëfoon daaw jëf nañ lu ko pren sëriñ bi ne jëf nañ lu ko pren te loolu te loolu pas-pas rek a ko may pas-pas rek a ko may nag maa ngi leen di sant bu baax nee na ngi leen di sant bu baax di sant waa Touba Jannatul Mahwa. di sant waa Touba Jannatul Mahwa. ci njiitul universel Serigne Babacar Mbaye. ci njiitul universel di ko sant di ko gërëm. di ko sant te di ko gërëm. moom mbooloo mi. moom mbooloo mi. tudd ñooñu rek. nee na daa tudd ñooñu rek. waaye fu daara ne rek. fu daara ne rek. ci biir réew mi. ci biir réew mi. ak bitim réew. ak bitim réew yépp cant googu cant googu maa ngi leen koy jooyal sëriñ bi ne maa leen koy jooyal li ma leen ci digaloon li ma leen ci digaloon def nañu ko def nañu ko ba def lu ko weesu ba def lu ko weesu ba ndam li fës ba ndam li fës yéex nañoo tàmbali yéex nañoo tàmbali ndax boobaak léegi boobaak léegi gis ngeen mbooloo mi gis ngeen mbooloo mi ni ñu ràññee di jëblu ni ñu ràññee di jëblu ñi fi rang ñëpp ngeen leen di gis. ñi fi rang ñëpp ngeen leen di gis. ñuy jébbalu ñuy jébbalu. war nañoo mat lim bi day xam naa ne war nañoo war naa mat war mat kan waaw moom day. depuis démb ba léegi ñaata waxuma barki démb tey. xam naa bu bu bari na daal. seen li ngeen xam ne daal moom lim bi bari na. day mel ni gars yi xamuñu ko waaye. nee loolu nag. waaye loolu. day wane ni nee na loolu. ci gisul mbiram. yow daal xamoo dara. ak cant rek nu wax. sëriñ bi nee na ak cant rek nu wax. maa ngi sant góor maa ngi sant. moo ngi sant góor moo ngi sant jigéen. day mel ni bu doon doy. day mel ni bu doon doy. doy na doy na dañ naan doy na. doy na waaye sant ko. nee na sant ko moo dul doy mukk. moo dul doy mukk jëf. maa ngi gërëm ñépp moo ngi gërëm ñëpp. di sant ñëpp. di sant ñëpp. tey ñaan. tey ñaan. ci barkeb sëriñ bi. barkeb sëriñ bi. déwén dàqal nu ren fuuf. déwén dàqal nu ren fuuf. ñu fekke ko. ñu fekke ko. te tal ko. te tal ko amiin. ba luñ ci jëfoon rek. ba luñ ci jëfoon rek. luñ ci jëf ren. ci jëf ren. ñu xeeb ñu xeeb ko. ba man ma mën a jëf lu ko. mën a jëf lu ko fuuf. te daal di tàmbali léegi. te daal di tàmbali léegi. màggalub déwén. màggalub fii daa toogoon daaw. fii daa toogoon daaw. Serigne Touba dimbali nu. Serigne Touba dimbali nu. mayaat nu. mayaat nu. bu fekkee ko. bu ko. la ma ko ñaanoon. la ma ko ñaanoon. la ma ko ñaanoon may lu ko ëpp. kon nag war nañ koo sant. kon nag war nañ koo sant. li may tëje rek. nee na li muy tëjee rek. mooy jafe-jafe ndox. jafe jafey ndox. ci ci ci ci Touba. ci tuubaa wax dëgg yàlla. wax dëgg yàlla. waa waa gaa yi jàmbaar la gaa yi jàmbaar la man diggoon nañ ma sax. moom diggoon nañ ko sax. ni ma ren. ren. danañu ma may ndox. danañ ko may ndox. danañ fexe. danañu fexe. ba quartier bi am ndox. ba quartier bi am ndox. def nañ ci seen kéem kattan. def nañ ci seen kéem kàttan wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla assainissement bi assainissement ko fu dugal nañ ko fu ne lu nekk soppi nañ lu nekk soppi nañ ko pour ñu am ndox pour ñu am ndox maa ngi leen ciy sant nee na moo ngi leen ciy sant bu baax waaye waaye day mel ni ndox amul waaye nag day mel ni ndox amul kon ay jafe-jafe kon nag loolu ay jafe-jafe du ñun rek du ñun rek tuubaat gépp la Touba gépp la moo tax moo tax ma bëggoon mu bëggoon ñu defar suñu forage bopp ñu defar suñu forage bopp forage boo xam ni forage boo xam ni dañ koy def fii ci suñu biir quartier fii ci suñu biir quartier fii ci biir Jannatul Mahwa fii ci biir Jannatul Mahwa mais mën nañ ko mais mën nañ ko ab forage. ab forage ñun li ñuy li ñuy liggéey. ñun li ñuy liggéey. ci at mi rek. ci at mi buñ ko xaymaa. buñ ko xaymaa. daanaka day toll ci milliard ak nangam. daanaka day toll ci milliard ak nangam. jëf yi ñuy jëf rek. jëf yi ñuy jëf rek. ci liggéey bi. ci liggéey bi. liñ ciy liggéey. liñ ciy liggéey. war nañoo xam ne ab forage. war na ñoo xam ne ab forage. bu may ndox quartier bi. bu may ndox quartier bi. mënuñoo të. mënuñoo të. moo tax maa ngi sant. jëwriñ yi nee na moo ngi sant jëwriñ yëpp bépp jëwriñ bépp jëwriñ ci njiitul Ousmane ci njiitul Ousmane ñu daal di daje ñu daal di daje xool ak ñun sëriñ tubaa def na ci sunu biir ñun Serigne tubaa def na ci sunu biir ay ingénieur ay ingénieur ci wàllu ndox ci wàllu ndox mën naa cee lim yu bari nee mën na ci lim ñu bari. am na ñu ne SONES. am na ñu ne SONES. am na ñu ne OFOR. am na ñu ne OFOR. am na ñu ci ne USAID. USAID ñoo xam ni. am na ñoo xam ni. ci wàll ndox rek la ñuy ci wàll ndox rek la ñuy dañuy fexe. dañuy fexe. dajale leen. dajale leen. waxtaan ceeg ñoom. waxtaan ceeg ñoom. ñu xool nañ ñu koy mën a tabaxal. ñu xool nan la koy tabaxalee. sunu sang bi. sunu sang bi Serigne Cheikh mooy bënnal boppam ay forage mooy bënnal boppam ay forage xel kom xel ngi ci bu ma juumul juróomi forage mu ngi ci juróomi forage yoo xam ne moo koy bënnal boppam moo koy bënnal boppam moo yor matériel boppam moo yor matériel boppam di koy bënn di koy bënn yor ay dongoom yu koy bënn yor ay dongoom yu koy bënn waaw kooku wan nañu yoon wi kooku nag wan nañu yoon wi pourquoi ñu fi ne di mar. pourquoi ñu fi nekk di mar. bu bu màggal jotee. bu màggal jotee. du ñu am sax ndox mu ñu sangoo. du ñu am sax ndox mu ñu sangoo. nañ ci góorgóorlu. nañ ci góor góorgóorlu. kon ndigal laangoo. ndigal laangoo. loolu daal laa ne woon. loolu daal la ne woon. dama koy tëjee. dana ko tëjee. te kat mébétu sëriñ bi la woon. te mébétu sëriñ bi la woon. ci mujjoon ak mujjëm. ci ak mujjëm. digle woon na ni dafiy def diggoon na diggee woon na ni dafiy def ab forage. diggee woon na ni dafiy def forage. ba woon ci papa Berté. ba woon ci papa Berté. ba waxtaanoon ceeg moom ba mooma nag. mébét mooma. agsi nañu ci. agsi nañu ci. war koo. war koo matale. war koo matale nag. borom gis-gis la woon. borom gis-gis la woon. xamoon na ni. xamoon na ni. danañu am ay jafe-jafe. danañu am nag ay jafe-jafe. ku sëriñ Tuubaa dimbali la ku sëriñ Tuubaa dimbali woon la. da doon da doon ab def ay appréciation yu juste. nit la woon koo xam ni. nit la woon koo xam ni. sëriñ Tuubaa da koo mayoon ak gis. sëriñ Tuubaa da koo mayoon ak gis. xamoon naa ni forage boobu. xamoon na ni forage boobu. faaw nu yittewoo. faaw nu yittewoo ko. kon maa ngi leen di sant bu baax. nee naa ñu ngi sant bu baax a baax. Ibrahima Diagne. Ibrahima Diagne. bàkkal ñu sëriñ bi bàkkal ñu sëriñ bi waaw waaw. waaw kon nag acca mu gaaw boobu. sëriñ Saalum sëriñ Saalum ñoo ngi di nuyu sa kilifa yi fi nekk yëpp di nuyu mbokki taalibe bi yëpp di nuyu sa sang sa sang Cheikh Ahmadou moom sëriñ Saalum di ñaan la yàgg fi tëgee sëriñ bi teg nun dafa dañu maanaam woo di ay ay te yow la doon moo xam ne yaa jàllale kon boo ñu santee ñun silma yi kat xam ne dañuy jàllale kon war na loo sant ki nu ànd ak tam nanguloo jàllale ndax ak bu ñu ko tëral yoon kon nii dëkk bi mel wala nii maakaanta mel kon bu ñu mel ndax sa pëstéef ak sa bëgg ak sa nangoo yaakaar li fi seen béykat bàyyi moo tax màggal bi mel nii mu mel. sa jom sa ngor sa taalibe sa yéene moo wax ni ndimbalal Sëriñ Tuubaa moo tax nga woote nii nga ko woote moo tax ñu ciy góorgóorlu te nii kon boo ko wootee di ko doxal ba mel nii mu mel kon ñun ñi nga xam ne dañuy seytaane te dina sagoo sant nañ la gërëm nañ la ndaxte bu duggutoon ak yow kon du mel nii sa sa sa pëstay fee ci la nekk wax ak ñun di la wax ci sa kër di la wax ci kër ci màggal ba mel nii kon dama ne sax te di ko gërëm ne ñaanal yaakaar te wér te ne dañ ko laalaat suñu bopp ñun ñëpp boo ko xam ne daal di seen fii ci Touba loolu la doon wax tam jaaxal te dëkk fii ci lekk sa jëlaat ñu yeesalaat suñu jëmbat engagement engagement lépp lu ñu digal muy guddi muy bëccëg fas nañ leen mu def ni ñu ko bëggee ànd ak sa ginnaaw ñun daal daal ñu toog du ñu nelaw du ñu dawal du ñu daaj lépp lu ñu digal guddi ak bëccëg tey da ngeen di ji. am nañu wala ngeen teg ko nii rek teg leen ko.